suñu collègue bi ñu naan El Hadj Tidiane Kane nekk ICP Soura depuis bi ñu taxawalee suñu section SUTSAS au niveau de dañoo commencé seetlu ay tracasé yi c'est-à-dire ay station sorcière te lenn waralu ko lu dul xëy na ñenn ci ñuy it le fait que ñu taxawal ko SUTSAS moo leen tiital ndax nemmeeku woon nañ ci district bi loo xam ne. daanaka mën nañ na gestion pharmacie bi mu fi amoon maanaam bi def bu la neex gérer personnel bi mu la neex xëy yóbbu fii kii ginnaaw suba nga yóbbu fii kii boo nekkee sa benn agent neexu la nga jaarale moom ministère am noo def ak moom génnee ko Touba bari nañ fi ay naataangoo ak ay collègues ba même ay médecins yoo xam ne dañoo toog rek xëy suba ñu indi leen affectation ministère de la santé moo fii nga jëm alors que laaj ñu ko binduñu. te yooyu daf fi yàgg à un certain moment nag ñu ne loolu ça ne plus continuer parce que ay fonctionnaire a fi ne te nous sommes régis par des textes et des lois maanaam dañoo ñëw dënk ci ay xaatim yoo xam ne yoon dafa am lu ñu may ñu ñu am lu ñu warloog yoon donc waratuñu mën a nangu agent nekk fi di def liggéeyam ni ko waree kenn toog bureau ne kii boppam neexuma kanamam neexuma tey dafiy jóge rawatina nag dem ba ministère am noo def ak moom mu génne ko dëkk bi loolu nañ ne il faut que ça s'arrête il est pour ñu dellu si waat si kaawu caan ñun ñii nga xam ne bii ñëw Tuubaa fi nañ ko fekk sama collègue yaa ngi nii mën nañ ma seede c'est l'un des meilleurs infirmiers chefs de poste du district sanitaire de Touba demoon na bay joué benn rôle mën naa ne rôle boo xam ne xëy na SSP ko waroon joué wala rôle boo xam ne superviseur bi ko waroon joué moom moo volontaire doon joué boobu rien que pour defar élément bu mel noonu naka nga a jëlee ne da nga koy génnee jëlee nga koy génnee Touba beneen bi ci si nemmeeku mooy kilifa yi nga xam ne moom la nekkal foofu. moo xam kilifa diine yi ñëpp dox nañ si njëkk ñii ñaan nañ ñii yabal nañ ndaw ñun ñi nga xam ne avant su section bi am sax daanaka ab association bi def nañ fa ay délégation dañu ñaan si njëkk waaye toujours dañ ñuy xamal ne ñun daal luñ décidé mooy am te ku fi mun ta toog da ngay génn Touba maanaam njiit gi euh, docteur Ndeye Maguette moom mooy RCC bu dañuy xamal ne ñu fii ku fi mënul wéy suñuy waaw. da ngay génn Touba mel ni daal ñoom dañoo am benn carte blanche boo xam ne ku leen neexul da génn Touba te amuñ si ndigal kenn santu lañ dem nañ ba kilifa diine yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ak moom foofu wax si mu gàntal leen ba récemment def nañ point de presse boo xam ne ñii nga ko woon dégg nga leen si wax léegi nag yaakaaroon naa ne il est grand jot na niveau régional ñëw fekk si bi si loolu ñu koy rafetlu doon leen wax ne aussi xëy na mieux vaut tard que mais on aurait souhaité que mu gën a teel waaye nag ñu ngi bi kon ñu xam ne xeex bi léegi wéetutuñ si nos collègues de Bambey de Diourbel de Mbacké sont entrés dans la danse beneen bi si tegu mooy le mouvement national ànd gësal bi nga xam ne amoon nañ ay plateforme revendicative au niveau national yooyu yaakaar naa ne bu sama yeneen collègue ñëwee dina ci gën a loolu lépp day firndeel ne la bataille syndicale c' est pas la bataille d'une personne c' est la corporation parce que lii daal suñu xoole ëllëg mën na daal fii keneen lii mouvement national bi di xeex c' pour l' intérêt de tout le monde tàmbali nañ xeex bi depuis bientôt ñu commencé nañ suñu rek commencé nañ suñuy rétention de données depuis si nañuy wëy le mouvement national day ñëw fekk ñu si de même que nos camarades de de la réunion donc dinañuy continuer wëy bi def suñuy rétention de données mais nag foog ñu euh, dafa am nu mu juddoo bien que nañ nekk bien dañuy def ay revendications mais on a des limites. parce que aussi lépp lu warloo population yi en terme de soins en terme de constatation loolu dañ koy def parce que dëkk bi moo tëddee moom ay kilifa fi nekk dañ leen jox cër. ñun encore suñu objectif c' est pas de demander le départ d'une personne on ne se bat personne mais suñu objectif mooy baax euh, suñu objectif mooy suñu camarade nañ ko bàyyi xam nañu bàyyi affectation arbitraire au niveau du district. surtout ñi ñuy génnee district nga xëy rek ñu jël bu génnee sànni beneen dëkk sans aucune raison loolu lañ nañ ko arrêté. maa ngi fi leen félicité le camarade ndax euh, li nu xamul woon xamal nañu ko defe naa lépp leer ba man biñ ko jaaree ginnaaw sax bett ko am luñ ko laaj. ndax da na a soxla bu dem tiit na ndax maa ngi doon séntu mu ne waaw te bu doon waaw ma ne ko xoxo parce loolu du suñu cër ndax fonctionnaire la comme ñun amuñu benn sañ-sañ bañ ko fi indi tàgguwul ñu toog naa na fi jóg waaye bëri na kenn ku ci nekk sa ñaata sa xat suur sa xet foo xam ne fii boo jógee di nga xam fan ko suul dañu waxoon président nous avons enterré la hache de guerre mais chacun sait là où il a enterré sa pour la retrouver demain en cas de li ma ci dox man personnellement <coughs> cëru mag jàpp ne ñëpp sama njaboot lañ ba mu xewee gis naa ku ma war a gis dem naa ci moom toog ak moom médecin chef district dem na toog ak moom waxtaan ak moom ne ko ñii ay liggéey liggéeykat lañ carte yi ñu jot am man mii maa leen ko jaayoon boobu docteur Dieng bi man mii maa leen ko jaay ñoom ñëpp buñ demee mën nañ koo génne boobu docteur Dieng bi si wax moom ci boppam jëndoon kon li ñuy def taxaw mu jóg. pour aar seen bopp aar seen liggéey aarale seen ak y sa bos parce que agent nga comme ñoom ndax ñoom bu ñu regroupé ëllëg bu ñu lay néewal doole loo ci mën ñoom dinañ ko ci man ànd ceeg yow wala ñu xeex ko fekk yow yaa nga fële mieux ma ne parce que ñii yàgg nañ fi xam nañ dëkk bi ay notable lañ da nga leen di woo li nga bëgg mën naa am nga am ko waaye woo leen nga waxtaan ak ñoom naxanteeg ñoom bu ko defee bu dul ci par force xëy na mën ngaa am boo amul lépp dina am loo jaar defe naa tàmbali woon na koo def ba am na bés yónnee na ma kilifa jëndal ma kaamil ak ab sidaada ak kurus. kon ma remercier ak ah, sama xol seen. loolu itam pour wax dëgg defoon na ko te la ko waxoon na ko xaw ma nag lu xewaat ci diggante bi xaw ma lu xewaat ci diggante bi kon dellu ca gannaaw ba lii lépp am ah man nag magum lëndam la ku ma daj ma daj sama